asalaamaaleykum jërëjëf waaw sëriñ bi ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu fay leen ko nuyoo waaleykum salaam wa rahmatulah sëriñ ne ñu ngi nuyu bokk yu fi daje yëpp di leen ziyaara di leen bal xaq leen bal xaq di jiital ci nuyoo bi tedd yi fi teew ne foo waay jóge jub ngel ak kër Ibra hmm. ne fépp rek ñu ngi leen di nuyu nuyet xol di leen ziyaara di leen tatagal di ñaan yàlla na ko maam daan ñaane bàyyi daan ko ñaane noonu seen tànki tey yii yàlla na ko yàlla def tànki yërmande amin tànki barke tànki sutura tànki faju aajo mais yaakaar naa ni ñeenti yi moo leen fi indi walla bu fekkee ni andiwu leen fi ngeen teel koo wax yërmande barke sutura fajug aajo yërmande barke sutura fajug aajo yërmande barke sutura fajug aajo yàlla na yàlla defal leen ko di ñaan yàlla itam seen tànki tey yi yàlla na ko yàlla yéegal te war mu Seydil Xaaji Malick gawoon ca Jaksaaw war mu galan la Seydil Xaaji Malick seeni maamaat ak seeni maam dañoo ñëw ca tool ba liggéey ba ngoon ba mu leen di ñaanal yàlla di leen yeewi dafa leen ni dama leen a jëllale yéen ñëw sama tool bi di ñàkk waaye wóor na ma ni fas ya ngeen war tànki fas ya ñax gu mu dëgg ñax ga nag wu ko lekk nag wa meew mu carate ratte meew ma ku dox ba yem ca naan ca di nga texe ne kon warlu googu yàlla na ko yàlla yéegal ci seen tànk yii sëriñ ni ñëw ngeen tey wuy si wooteeb mais xam nga damay wax ni àdduna bi foo dem ni gàmmu yem ca xel yépp ci kenn lay dem muy Seydil Hadji Malick wala déet waaw demal fépp àdduna demal fépp foo nee gàmmu yem ca xel yëpp ci kenn lay dem muy Seydil Hadji Malick waaye àdduna bi wëral foo dem nga ni ziyaara général yem ca xel yëpp ci kenn lay dem borom bone kaare bu jëkk ba borom foto bee Serigne Babacar Sy ndax moom moo sonnoon ci daayira ba digge ca diggeem bu rëy ba muy lan diine ji tariqa bi daayira yi mécce yi yoonu tiwaawoon diine ji tariqa bi daayira yi mécce yi yoonu tiwaawoon mu ni sax ci lii juróom yii sax leen ci ku ci sax ba ëllëg ku gis Malick di nga gis Malick ku gisul Malick dogu naa man Babacar ni di nga gis Malick te ko man di gis Malick war nga koo gëm ko man doo gis Malick war ngaa jàq ndax ka nga wóolu mooma te man la Malick wóolu te ku gis Malick ëllëg na wala Malikul muluk te mooy yàlla te gis yàlla moo dàqaal janna ne sëriñ ne dafa wax ni ku ñemee na wax nga wax ren ba déwén nga nettaliwaat ko dañu la koo jiiñ waaye waxoo ko yii ma bëgg a wax ku dul borom bone kaare bu jëkk ba ki tax ngeen ñëw fii ku ñeme na wax ku wax ku dul kooku dootoo ko dolli man Babacar man Babacar man Babacar ëllëg ku ma ni di nga gis Seydil Hadj Malick gëm ko ku ma ni doo gis Seydil Hadj Malick jàqal te ku gis Seydil Hadj Malick mu woon la yàlla te ku ñeme lu waxal ku dul Babacar si boo ko waxee ren ba déwén nga nettaliwaat ko dañ nga koo jiñ waaye waxoo ko mu ni man Babacar nee waxuma nit waxuma jinne waaye malaaka sax ñemewu ma ragal yàlla gala dañu wax ni sëñ Babacar Si dafa ragal yàlla boo ragalee yàlla yàlla dina def lépp ragal la boo ñemee yàlla yàlla dina def nga ragal lépp sëñ Babacar dafa ragaloon yàlla mu ni man Babacar Iblis. ni yàlla rëbbu dik ko sawara toroxal ko bu ma ne woon yàlla jéggal ko mu jéggal ko allahu akbar ba gën a garaaw nag mu ni man Babacar rus sama baay Seydi El Hadji moo tax waaye ma rusuloon sama baay Seydi El Hadji Malick sama photo ku ko ni ma Babacar ma ni la labbayka kooku moo ngeen ñëw fii ne wolof dafa wax ni yoon jëmul ci dëkk ci nit la jëm aa ah. mu ni yoon jëmul ci dëkk ci nit la jëm loolu mooy lan sëriñ nee mu firi ko ah mat naa firi boo jógee ci dëkk romb ay dëkk dikk ci dëkk dëkk di dëkk nee du dëkk ba ka ca dëkk ba la nee mu waxaat ko danga ngaa jóge ci dëkk jut ngeen ngeen jóge da jóge ci dëkk romb ay dëkk dikk ci dëkk te dëkk di dëkk nee du dëkk ba ka ca dëkk ba la yéen ñëpp lay wax ci ay dëkk ngeen jóge dëkk la est-ce que bi ngeen di ñëw Tiwaawan romb leen ay dëkk fii ngeen ñëw muy Tiwaawan dëkk la waaw fii ngeen ñëw muy Tiwaawan dëkk la dëkk ya ngeen di jóge ak ya ngeen romb ak Tiwaawan benn la dëkk dëkk la waaye ba ngeen waree jóg war a ñëw Tiwaawan ba war a dugg ci yi ña dajeeg yéen laaj nañu leen ñetti laaj ñetti laaj ñetti laaj yooya benn bu ci nekk nakk nakkalu leen ca tontu ba tontu bi dafa gaaw lañ leen njëkk a laaj waaw yéen fan ngeen jëm tontu ba gaaw ci saasi ngeen ni tiwaawan waaw tiwaawan ñu waxaat leen. leen. waaw bu ngeen demee Tiwaawoon. waaw bu ngeen lan ngeen fay wuti. lan ngeen fay tontu bi gaawaat. ngeen ni dañuy dem. pour ziyaara ji pour ziyaara ji. ñetteel bi nag. mooy laaj bi nag. waaw foo jëm. Tiwaawoon loo fay wuti damay ziyaara ji. ñetteel laaj bi waaw bu ngeen demee Tiwaawoon. di ziyaara ji. kan ngeen di ziyaara tontu ba gaawaat ngeen ni bu ñu demee Tiwaawan dañuy ziyare sunu sëriñ ku bax ka ku yiw ka ku sel ka ku tedd ka ku set ka ku sàmm ko sëriñu sëriñ si borom parasol ba borom Tiwaawan Seydil Hadji Malick Serigne Babacar Sy Alhaji Abdou Aziz Alhaji Mansour Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour ak ak ak njaboot gi jeex na waaw ne kon yoonu jëmul ci dëkk ci nit la jëm ne fii Tiwaawan Sëriñ Ñang uh, uh, Njaga na ngeen jàpp leen gis nga Tiwaawan tuddul Tiwaawan mais xanaa déggati ngeen lu bees lu mu tudd laaj nañ la ko si Tiwaawan fii ngeen ñëw tey tuddul Tiwaawan nu mu tudd sëriñ xam ngeen nu mu tuddam tibb ba doyal yóbbu waaw fii moom dara du fi jeex mbandum lem mbandum lem nga fekk mband ma nga jël sa baaraam capp génne baaraam ba macc la ca baaraam ba mu neex lool waaye bariwul mbànd ma ubbuñu ko mbànd ma terewuñu la ko nooy defaat ndeet moom de nee du cappaat moom sëriñ bi ne garambu bi lay sol booleet yaram weet garambu bi ni waddat ni labu ci biir mbànd ma lépp tax may mar rek <laughs> waaw waaw koo yéene lem may ko lem nee foo loolu mooy Tiwaawoon ne Seydil Hadji Malick yàlla nañu ko yàlla fayal amin yàlla nañu ko yàlla fayal amin yàlla nañu ko yàlla fayal amin ngeen ziyaar si nag ziyaara boo ko defee nan ko war a defee la la cay fekk dañuy dindi raaga remplacé ko deel muy ziyaada kenn bëggu la wàññeeku wala déet bëgg a wàññ kenn man de bëgguma ma ku ne dangaa bëgg a yokku dolleeku kon boo ziyaara dangay ngay yokku da ngay dolleeku nee bu kenn woy kenn du woy si kenn du woy ne boo xamte bii ci la yëf yi nekk de xat-xatloo bii ngeen di def ñàq wi tàngoor wi mar xiif ñu di la dëggaate di la nappaaje fat fa tabaarakallaahu lu ne nga daj ko di buuxante sonn xat-xatloo raj-rajloo foofu la mbir mi ne ne sëriñ Babacar Si ku koy ziyaara barabu ziyaaru ku fay dem da ngay nangoo box boxloo bu boobaa boo bëggee yokku nga yokku boo bëggee daraja nga am daraja doomam ju tedd ja sunu sëriñ bu baax ba cheikh sayidi mouhamadul mansour ba mu koy woy loola la wax xamal ñëpp kuy ziyaara sëriñ Babacar fokk nga daj coono ngir ziyaar ba nangu dafa wax njëkk a wax ni la nga war a booy ziar si xol ba nga war a andi moom la la wax mu ni man zaarahu bi salimin qalbi naala munan fasal bihi kulla man taraahu yaxshaahu man zaarahu xadra xalbi shaati min zamanin yafus bihi ma nawa min saydi نعماه قد زاحم الكل في الميزار دون مرا في ذاك حقا مزيدات كذا الجاه mu ni man zaarahu képp ku ziyaara Sëriñ Babacar Si fekk ba nga koy ziyaara bi salimil xalbi yaa ngi andi xol bu laab xol bu set xol bu day naa la dana am munam lépp lu mu bëgg booy ñëw di ziyaar Sëriñ Babacar jëlal xol nga def ca set sell fóot ko ba mu set nga andi jox Sëriñ Babacar Si bu ko defee lépp la bëgg yàlla defal la ko mu ni nag xad saaxama bux bux loona raj raj loona buuxante na alkullu ñëpp fil misaari ca barabu ziyaarukaayu Serigne Babacar Sy comme nii rek doona miran ci lu dul benn werante nee na fii daaka na ca buuxante ba ak xat-xat looba xaqan ca dëgg-dëgg masidaatun boo bëggee yokku boo xanteel kazal jaaw boo bëggee daraja boo xanteel mooy lii rek ay kon yàlla yàlla nangu siyaar yi yàlla yàlla nangu siyaar yi jotal nu yóob sunu sëriñ suñu mag suñu xalifa baay suñu kilifa ñeent yëpp moo ko doon ci ñun muy sunu mag sunu sëriñ suñu kilifa suñu xalifa baay di di sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si Mouhamadin Mansour dafa am ngàntal xadara bi rek lu mu doon doxal xadara bi mu am tuuti ngànt rek mu ni ma maam sa njabootu baay googu demal nga saafonteeg ñoom loo fa wax maa ko wax loo leen ñaanal maa ko ñaan man nag man maam Malick yàllaa ma binde benn jikko sama nopp yii gannaaw ndigalu yàlla sama ndig sama ndigalu kilifa lay déglu na leer fu ma dem sama kilifa moma fa yabal luma def moma ko def lo fa ñu yem lo yit fa lay yem la ma def lo yit lay def fasiyene nek sen seen nek ci sen souf nek sen jam ñu dima deggate dima yoni lu len neex tek ma te duma ni eh yàlla nang ko yàgg dox si yàlla nang ko yàgg dox ne kon na ngeen xamni sama jotaay bi serigne Cheikh sama kilifa moma jox ndigal ni ma demal ci njabot ga loo fa waxtaan loo fa ñaan may validé sama làmmiñ bu may ñaan sama làmmiñ moy yëngutu waye mom moy ñaan na ngeen xam lo fa tabarakallah kon yàlla na yàlla nangu siyaar yi balaa may tëj nag sargal ñi nga xam ni ñoo moom siyaar bi ñi moom siyaar bi ñi moom siyaar bi tudd guma tur de xam ngeen fi ma jëm ñi moom siyaar bi daal nga xam ni ñoo nekk ca gannaaw ñoo nekk ca gannaaw ñoo nekk ca gannaaw sëriñ la bu ñuy ñaana rek ñuy bañ di xam ni ñoo nekk ca gannaaw ci jataay waaye ñoo nekk ci kanam ci jëf muy kiin ji yee soxna yu tedd yee soxna yee mais xam nga lan la ngeen baal ma est-ce xam ngeen daayira li koy doxal est-ce xam ngeen bi dafa laaj de xam ngeen ko daayira daayira deel la hmm? commencé waaye ñaar yi koy ñaar yi koy doxalit bu ci ne deel la commencé daayira ñaar moo ko yor bu ca ñaar nekkul mu tas wala mu dang daaye muy deelu daje ak deelu dajale daayira daje ak dajale daayira bu amul daje amul dajale daayira ba du dem jigéen ñi nag ñaari deel yi ñoo koy def ñooy daje ñooy dajale góor ñi góor ñi dajewuñu dajalewuñu jigéen ñi ñooy daje ñooy dajale bu jigéen ñi daje dajale ko góor ña ni doññet ni ko doññet yóbbu def seen poos di xoolay bët <laughs> waaw dégg ngeen ni mu ko waxee daf ni daayira ñaari déel yi koy doxal jigéen ñi la muy daje ak dajale jigéen ñi ñooy daje ñooy dajale góor ñi dajewuñu dajalewuñu jigéen ñi lu ñu daje dajale ko góor ñi dajaloo li ko doñ ñëpp <laughs> tabaarakallaahu ah yàlla na yàlla nangu siyaar bi amin sëriñ Cheikh mu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara bu baax di feddali kóllëreem fa ko mag ñi tegoon muy la mag ñi sosoon di seen digganteeg baayam yéen ngeen mottali ko ci moom ak njaboot gi loolu mooy jikko ju rafet tabaarakallaahu damay faral di wax gaa ñi ma ni leen dëkk dëkk dëkk bu jëmee maamaat jam maam jam doom dëkk bu jamee maamaat jam maam jam baay bu jamul doom wàcc na yoon wa hmm. Hmm. mu ni dëkk bu jam bu bu jamul doom doom wàcc na yoon wa nii dëgg nga dëggaa ngi ci kaw yoon wi maamaat jaar ca jaar ca yoon wa dëgg jam ko maam jaar ca yoon wa dëgg jam ko baay jaar ca jam ko doom ñëw kenn mësula dégg fu ko dëgg jame dafa jaarul ca yoon wa maamaatam maamam baayam jaaroon yéen nag dégg jam na leen jam na leen ndax mu ngi nii ana mag ña kañ lañ fi jóge yéen a ngi ñëw tey Tiwaawan ngir lan feddali kóllëre na ngeen bàyyi xel leen na bàyyi xel leen ñaari buum moo am ñaari buum benn bu ci nekk ci ñaari buum yi ñaari cat la am cat bu ne am na ku ca téye benn buum bi mu ngi tudd njaam benn bi mu ngi tudd kóllëre buum gi tudd njaam buumu njaam benn cat bi am na ku ci téye ki ci téye xam nga nu mu tudd boroom muy yàlla ba ca des cat la ca des am na ku ca téye xëccatee nu mu tudd jaam jaam kon war na jekki-jekki yëngal catam ba boroom xam ni buum gi daggul beneen du kóllëre benn cat bi sëriñ moo ci téye beneen cat bi taalibe téye ci taalibe kon war na jekki-jekki yëngal catam ba sëriñ bi xam ni buum gi daggul lii nag kon yéen seen cat waaye yëngal ngeen seen catwaay ah sëriñ bi ne yàlla na yàlla fay leen amin ku fi andi njàqare yàlla na ko yàlla sekki ni dëkk amin mu ne ku fi indi njàqare yàlla na ko yàlla sekki ni dëkk sunu sëriñ Cheikh Sëriñ Mouhamadou Mansour moo daan faral di wax naan bari na gor bañ baa feeñ waaye xol ba réewul bëri na gor bëñ ba de moo feeñ waaye xol ba réewul rawatina jamonoy tey jii kon képp ku fi indi njàqare yàlla na ko yàlla sekki di ku fi indi feebar yàlla na ko yàlla saafara ku fi indi naqar yàlla na ko yàlla teggi képp koo ci xam ni amoon nga aajo itte ba fan yi yëpp mu mu teelaa nelaw guddi xam nga léeg-léeg mu laaj benn laaj ku nekk naan nangam ak nangam ba tontu bi ñëwaat ci man damay wax toujours ni yéen mbooloo mi est-ce xam ngeen lan moo gën a metti ci àdduna li gën a metti ci àdduna njaga xam nga ko Bakar Baye Malick mu gën a metti ci àdduna ah li gën a metti ci àdduna te ñu bëri duñu ko seetlu mooy soxla fukk a faju soxla fukk ku dalagul rek xamoo ko xalaat naa ci waaw si dëgg la di soxla si tam faju li gën a metti ci àdduna mooy am soxla mu ñor la te fajoogul aka metti moo gën a metti ñàkk moo gën a metti feebar moo gën a